comme ni nga xam mom lañ ko commencé tay tay ci vendredi bi euh ndogu de presse bi nga xam mom fi doon am ak plateau bi nga xam mom la sëñ Moustapha Diatara doon def léegi ak sëñ Baye Cheikh euh, sodi le 16 di 23 mai danañ def ben waxtaan bo xam thème bi ñu ngi koy wax ci himma wa makanatuha fil muridiyya mais l'importance de la détermination dans le mouridisme ki koy ki koy def ki def waxtaan de day sëñ Mourtala Sylla ñi ci invité d'honneur bi ñu koy tuddee Cheikh Cheikh Issa Diène euh, vingt heures lay doon ci kër Soxna May bi nekk ci jumaa ji Touba Mosquée samedi 18 mais ba tey danañ defal def benn panel panel boo xam ne ñu ngi ciy waxtaanee code de la famille code de la famille un, un débat entre pa entre passé et avenir pour la renouer avec nos valeurs islamiques القانون الأسرة نقاش بين الماضي والمستقبل من أجل استعداد خيام استعداد خيامنا الإسلامية 20 14 heures lay ko lay lay commencé ñi nga xam ne ñoo koy def nag mooy professeur Fatou Sow ak docteur Ndiogou Samb dimanche 19 tolloog 26 mai ci asalem fi ñi tam bi ñu fiy waxtaani moom mabadi ul muridiya al adab aadabul mardiya principe du mouridisme les règles de bonne conduite ki nga xam ne mooy def conférence bi di Serigne bu Bousso Thiès ñu ngi koy tuddee soxna faatimatu Mbàkke ñu gën koo xam ci soxna bu Bouya bintu Seyxul Xadim deux h la waxtaan bi di commencé mardi tamit 21 tolloog 28 mai ci aslem fii dañuy waxtaanee itam benn conférence bi fi am mooy alxifaas xala turaas thème boobu lay mooy am sauvegarde de la patrimoine ki nga xam ne mooy def waxtaan wi di bàyyi Cheikh mi nga xam ne moo doon waxtaan léegi Baye Cheikh Awa Balla bu sëñ Modou Mahfous ñu koy tuddee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Cheikhul Khadim kon lii mooy programme yi nga xam ne moo war a déroulé ci fii ba laylatul xadar gi incha allah.